boole ko loolu ak yi paxe yi ñu war a def bari léegi nag tijji nañ campagne tijji wuñ ko officiellement de mais gars yi tijji nañ campagne tijji nañ ko seen bopp tijji nañ ko seen bopp datu campagne bi jotagul waaye ñoom tijjil nañ ko seen bopp ku nekk yaa ngi def say pexe eh. ñu préparé wu pour def dem ci législative eh. léegi yow ñan ngay àndal yaa ngi koy xalaat ak ñan laa war a ki ak ban ñenn ñoo xam ne ban list laa war a bokk donc yooyu yëpp cest à le temps de positionnement et de manœuvre ku nekk yaa ngi teg say fem ak say pexe pour bu la yàlla dimbalee nga am député yu bari léegi nag yàlla a la coalition qui est en place ki dirige le pays mooy la coalition Diomaye mais apparemment dafa mel ni ñoom locomotive bi maanaam Pastef dañu bëgg a demal seen bopp donc bu bu bu demalee seen bopp ñu bari ñoo xam ne leader lañu yaakaaroon ne mën nañ dugg fële duñu fa dugg décidé ñu carrément mais apparemment même boo déggee seen militant yi ak ñu bari dañu ñoom jàpp ne ne Pastef am na doole joo xam ne war na mën defar sa propre liste bu loolu weesoo boo xoolee il y a l'APR l'APR fi mu toll nii comme li ko tubaab di waxee rek quand le navire kii nu mu ma wax les parce que ay nit lañu ñu les rats du mais dama les occupants sautent donc affaire fi mu toll nii sabar gu tas la ku nekk ngi te Amadou Ba mi gi jël langu boppam ñu bari déjà leader yu bari ay Alioune Sall ay kii nu mu tuddati Cheikh Omar Anne kii Abdoulatif Coulibaly ak euh, Lat Diop. Zahra Iyane Thiam ñu bëri dañu ànd. sans compter aussi foofu lay tibbee. Mm. dina am aussi yeneen frustration yu kii donc bennoo APR ak Benno daal sabar gu tas la dina bëri ay pàcc pàcc. léegi nag am na beneen bloc bu taxaw mu ci tudde ko bloc des libéraux et démocrates. Mm-hmm. ñooñu tamit bëgg nañu ànd ak APR ak réew mi ak euh, yeesal bu Modou Diagne Fada ak PLD bu Oumar Sarr. sans compter nag ñi ma tuddee les insoumis mooy ku mel ni Bougane. ah démb gis nañ ko moom. ku mel ni Bougane ak euh, kii nu mu tudd si ak Thierno Bocoum ak Thierno Alassane Sall. ñoo ñëpp ñi ngi préparé sans compter aussi am na benn alliance bu bees bu ñuy alliance pour la transparence des élections lu mat euh, organisation yu bari ngi ci organisation politique ak ay donc sa veut dire que ku nekk ngi daal waajal sa bopp. parce que élection législative dafa am solo pourquoi mu am solo parce que pouvoir bi dafa soxla majorité majorité ko bu ko permettre mu gouverner loolu tax mu dissoudre assemblée nationale bi parce que un PM sans majorité est un PM sans pouvoir. mais doyen au cas où amuñu majorité aussi lan la mën a jur. waaw léegi nag ils vont se conformer à la réalité politique léegi réalité politique boobu lan la mën a jur. bu dee ñële am nañu majorité absolue tu es obligé de prendre un premier ministre ci ñoom bu boobaa nag cohabitation day am wala bu ñu amee benn équilibre comme li fi xawoon nii équilibre boo xam ne donc politique moom bu ci kenn na c'est la gestion des opportunités c'est la gestion des intérêts ensuite c'est la gestion de situation pour nga nekk un bon politicien il faut nga am capacité d'adaptation ñoom il vont faire tout hein, pour être yàlla def na ils ont le vent en poupe vent de sympathie bi brisé wul même bu wàññeekoo tuuti brisé gul nit ñi jox na leen cofeel te ñi nekk langue bi ñeneen ñi surtout APR ak Benno nit ñi dañ leen rejeté le 24 mars diggante bi pour nga ñëwaat dina compliqué ah, trop parce que ñi la rejeté le 24 mars. mënuñu waaw ñoo fi nekk ba léegi te ñoo ñooñu duñ la duñ duñ la duñ la voté. donc tout ça ça veut que daal fi mu toll nii ku nekk ngi defar su cumbukaay di xaar bis bu bis bu rafet pour nga mën a dugg ci làmb léegi nag ban problème moo mën a am il y trop de listes Sénégal moom. Mhm. parrainage bi dañ ko doon def pour filtrer pour wàññi nit ñi. Mhm. léegi supprimer nañu parenage bi donc ku nekk ku am 15 millions rek di nga ñëw taxaw. parce que caution bi maintenir ko ci ni mu toll 15 millions ku am 15 millions di nga ñëw taxaw mm-hmm. léegi nag liste yi day bari floraison de liste lay am façon list bu nekk ay ay maa xew ak lu kenn façon tour bu nekk di nga ko gis bu soobee yàlla léegi nag parce que boo deux xoolee 2017 on avait 47 listes c'est c'est tout un problème heureusement président Macky Sall avait demandé l'avis au conseil constitutionnel ne ko mu permettre ko. pour mu jël pour que électeur bi mën a jël cinq bulletins kese société moo ñu dimbali mais sinon on risque d'aller vers des boo bootul fii bu ñu deful solution fii lañuy fanaan parce que ñii ñëw dina bari léegi nag décret de répartition bi defar nañ ko léegi nag on a reconduit les mêmes choses ville bu mel ni dakaar boo xoolee li fi nekkoon la ñu am sept députés mm-hmm. donc yeneen ville yi aussi Touba cinq la ñu amoon. Mbakke Mbakke waaw plutôt Mbakke parce que la le donc yooyu yëpp ku nekk daal li li nga amoon moom nga am léegi li ci des mooy ku nekk waajal sa bopp le temps presse léegi nag à partir de jour de moom bu la ci kenn na façon case bu nekk dinañ fi ñëw politiciens yi taxaw dañoo aay ci lool nag ñoom buñ la soxlaa dañuy sukk raam ñëw dugg ci néegu ñax yi waa bokk ak nit ñi. dem gis naa sax ku ku doon jéem a jékki gerte. lu élection bu la passé benn ministre la ci doon saaf gerte waaw ji saaf gerte yu kenn xamul lu nekk ñu dugg ci. fexe ba nax si léegi nag citoyen nu am fulay boppam. xam ne kartam bi dafa am valeur jarul mu koy jaay dix mille jarul mu koy jaay vingt mille jarul mu koy saaku ceeb parce que c'est l'avenir son avenir qui est en jeu ensuite l'avenir de sa famille. xale yi ñëw ak suñu njaboot ñooñu la ñuy xeexal donc ça veut dire que ku ci jël daal responsabilité di voter na nga seet ku la doy de manière objective nga dem voter ko pour bu tax ay liñ lay neexal wala yooyu bu mu tax nga voter ko. Moussa seen par rapport ak ak chronique bi doy def léegi donc mën nañ nekk liste bi nar naa bari euh, puccoo mbaalo bi aussi nar naa bari bientôt. waaw bon comme ni ko doyen waxee rek élection yi ñuy dem moom on va vers des législatives élection yu vraiment yu nar a particulière la ñuy dem nii nii nii le 17 novembre incha allah parce que temps bi timing bi moom moo gàtt parce que c' est vrai que assemblée boo ko dissoudre dañ ne la am nga 60 jours wala 90 jours au plus tard pour nga organiser élection yi mais président Diomaye moom 60 jours yi la choisir loolu nag mun na nekk stratégie politique mun na nekk tam aussi dafa bëgg mu gaaw parce que nouvelle. année financière bi tam mu ngi taxaw. waaw loolu tam mun na nekk luy expliquer <coughs> mu tànn 60 jours yi parce que bu tànnoon 90 jours yi peut-être que dina am problème pour assemblée nationale bu bees bi. voté budget bi quoi pour l' année financière 2025. xëy na looloo tax mu tànn 60 jours yi su ko defee ñu dem en mode fast track gaaw def élection yi. période contentieuse bi ñu gaaw vidé ko. député ñu mun a voter démocratiquement budget bu bees bi quoi xëy loolu la jublu mais élection yi moom. Mm-hmm. dans tous les cas élection yu compliqué la nar a doon. parce que gis nañ fi xewoon 2017 avec floraison de liste de candidats mm-hmm. pàccaxoo am ci ba conseil constitutionnel tegoon sax benn genre mun nañ ko tuddee jurisprudence lu mel noonu permettre pour la première fois au lieu électeur bi jël. list candidat yëpp mu choisir sa cinq dem ki yeeg yooyu loolu nag dañ nar a démarrer parce que boobu parce que caution bi du régler problème bi caution moom du filtre parce que 15 millions moom du dara pour donc du dara ci ñoom li ne woon nga xam ne moo ne woon filtre parrainage bi moo doon tee dindi nañ ko on a levé ce filtre mm-hmm. léegi problème bi kay mooy élection yi nii est-ce que du jaxasoo est-ce yi mun a am possibilité am clarté mun a tànn profil yi gën a baax liste yi gën a baax pour yóbbu leen assemblée. Mhm. parce que assemblée bi moom comme dañ ko tas prochaine assemblée bi dafa war a nekk une assemblée nationale de rupture ñu am député yoo xam ne avec le profil adéquat parce que député c'est pas n'importe qui. Mhm. wax nañ ko fi ba tey. député moo nekk koo xam ne mooy def loi yoo xam ne day impacter sénégalais yépp mm-hmm. député moom mooy évaluer politique publique yi député moom mooy contrôler assemblée nationale mm-hmm. gis nañ assemblée bi nii ñoo xam ne moom lañ daaneel ni le niveau était très bas gis nañ fa ñoo xam ne mm-hmm. la loolu lañ fa mën fa indi lu teesante dañ doon ñëw sax mel ni ñu ne ci défilé de mode loolu sénégalais yi soxlaatuñ loolu dañ soxla député yoo xam ne c'est des députés yoo xam ne fees nañ seen i place xam nañ leen fa indi loolu daal moom boobu xam naa ne moom loolu moo ëpp solo ci élection yi mais dans tous les jàppal ne élection yi moom ni ko doyen waxee mhm. désordre bu mag moo dara am parce que mënuñ maîtriser kii yi bu dee caution bi 15 millions yi loolu filtre parce que 15 millions yi lu euh, filtre parrainage qui était mhm. foofu mënoon na la téyel kii yu bëri candidat fantos yi candidat farfelu yi nga xam ne doon ñëw léegi caution bi nekkoon cause 15 millions gis ngeen ce qui s'est ci élection présidentielle caution boobu moo ëppoon doole foofu te ñaata candidat la amoon. romboon presque jege woon romboon nañ la barre des 100 candidats. Mm-hmm. waxuma laa nag bii li nga xam ne fii kii bi. 15 euh, la caution bi 15 millions kese la ce qui fait que yi ñu mobiliser millions du doon dara si ñoom. Mm. loolu xam nañ fii Sénégal comment ça passe comment les gens font pour collecter des fonds pour financer leur campagne déposer seen caution ak yooyu mais élection yi moom loo ci munti xam. kii mm-hmm. moom désordre moom moom yaakaar nañ ne moom ragal nañ mu am trop c'est vrai que ñaanuñ ko yàlla nag parce que test lay doon tam pour régime bu bees. waaw mu a léegi élection yi nag vraiment Diomaye gagné rek mu organiser ko mu am dans la paix sénégalais yi voté le dimanche lundi nit ñi jublu si liggéey bi. Mm. verdict des urnes yu tam aussi ñu nangu ko ak lu mu munti xew nag parce que amoon na possibilité tam xaar di solution bi lii mënoon na xaaram ah, mënoon na bàyyi sax bañ voté ko budget ba pare janvier décembre. mu door dem à des élections mais gis na ne mënul liggéey ak assemblée nationale bi gis na ne am na ay réformes urgentes yoo xam ne mu ngi koy porter te bëgg na ko mettre en œuvre ba mu tax mu dissoudre kii léegi daal na jël toutes les mesures nécessaires pour que sénégalais yi dem tey ay élections yu apaisées élections yoo xam ne kenn du ko contester après bu résultat yi génnee ñëpp nañ nangu bu ko defee ñu mën a jàll ci lenn. Mhm. merci beaucoup Moussa analyse bi am na solo tamit daal di jublu ci suñu invité Malick ndaw surtout yow bi nga xamante ne yaa ngi ca bërëb boobu mu ñu koy wax assemblée nationale naka nga jàngatee élection législative anticipée yi nga xamante ne moo nar am fii ci sunum réew le 17 novembre incha allah. vous savez Maïmouna euh, le président a le train de euh, de l'heure quoi comme on xam nga nit ñi nekk ci gaar yi. Mhm. train bi nga xamante ni moom mooy moom mooy ñëw ci waxtu wi intéressé wu leen leen intéressé mooy train bi nga xamante ni dafa tardé en fait euh, président Bassirou Diomaye Diakhar fay moo dugal boppam ci situation guuta boo xam ne mënoon na ñàkk man sama analyse du bokk ak euh, analyse u Moussa du bokk ak analyse u doyen Demba Ramata mhm. xam lu tax mhm. parce que je suis un technicien quand même de l'hémicycle euh, boo xamante ni xam naa bu baax disposition yi nga xam ne loi moo ko teg d'abord muy constitution mhm. ba pare règlement intérieur assemblée nationale accompagné ko li indi dissolution assemblée nationale d' abord. Mm-hmm. mooy on un président de la république boo xamante ni amul majorité à l' assemblée nationale mu yónnee leen texte pour supprimer ay institutions. am na sax yeneen naataango yu ma invité woon balaa lii yëpp di am. Mm-hmm. ma ne leen vous n'avez pas compris mbir mi ab piège la boo xamante ni gouvernement bi daf ko jël pour tester assemblée nationale bi pour mën leen nasaxal mais ñoom nekkul au conseil wala conseil économique moo leen di teel déedéet. c'était pas ça da nga jàpp lii ne euh, euh, politique la wala piège. c'est plus que de la politique xam nga na ma yàlla jéggal. Mhm. ñi nekk ci langue politique yi dañu yaakaar ne sénégalais yi amuñu xel wala amuñu xalaat na ma yàlla jéggal ci terme bi ko mhm. mais comment tu peux comprendre Maïmouna mhm. nga nekk président de la république nga trouver une soli une situation ci dëkk bi mooy que yow sa coalition intercoalition Yewwi ak ak Wallu dañoo dem élection am 59 députés. ci biir 59 yi Khalifa Sall taxawu am na ci 14 députés donc le PASTEF en tant que parti politique se retrouve avec 26 députés noo mën a amee loolu Benno Bokk Yaakaar am 81 entre 81 et 82 parce que ñoom dañuy seen chiffre toujours doo comprendre souvent ñu am benn non aligné bu ñëw woteel leen parce que boo xoolee ci loi bi rejeté tey seen texte yi ñëwoon à nationale le Benno a eu deux voix de plus deux voix yi fan lañ jógee. donc 83 yi voté 81 yi ñoo bokk concrètement biir coalition Benno Bokk Yaakaar yow en tant que président de la République du Sénégal noo mën a ñëwee jël ab kayit nga yónnee ko assemblée ne ko tasal ma au conseil bi nga xam ne amante Mbengue Ndiaye moo ko jiite bokk ci biir coalition majorité bi nga xam ne ñoo nekk ci assemblée nationale tasal ma conseil économique social environnemental bi nga xam ne ki ko jiite Abdoulaye Daouda Diallo ci biir coalition majorité bi la bokk encore te amoo fa te amoo fa en fait en réalité majorité loolu moo lay woon na la dañuy foowee xelu sénégalais yi. mais loolu promesse électorale la. waaw mais promesse électorale nekkul assemblée dissolution ou suppression au conseil ak conseil économique rek la jëloon comme promesse électorale. am na yeneen engagement yu mu jëloon yoo xamante ni cest à que il faut donner du temps au timing dama lay expliquer lu indi dissolution assemblée concrètement pour nga comprendre. Mhm. léegi soo jëlee loolu nga yóbbu ko député yow man nan laay demee tas kër goo xam ne sama mbokk mu ngi fay sëy wala am naa rakk wala mag jox mu ngi fa loolu xel nanguwu ko donc bi ñu bi ñu rejeté ñoom seen texte bi en tant que gouvernement qu'est-ce qu'ils fait le président par le biais du ministre porte-parole de la euh, de la présidence dañuy génn seen communiqué ne le gouvernement a pris acte ba mu ne le gouvernement a pris acte te yaa ngi bitim réew nekkul soxla bu na këtt bu na jonn boo xam ne tey boo tasee assemblée bi nit ñi duñ liggéey ci wala duñ di wala fonctionnement yi day bloqué mais damay bàyyi ba ñëw ci dëkk bi ma jël président assemblée nationale bi recevoir ko jël président au conseil bi recevoir ko jël président conseil économique social recevoir ko. Mm-hmm. parce que ay président institution lañ diisoo ak ñoom waxtaan ak ñoom ne leen nag man dama ñëw pour liggéey pour réew mi. li ma bëgg su ngeen ma si dimbalee ma ànd ak yéen su ngeen ko bëggul tamit danaa jël ma jumtuwaay yi nga xam ne yoon moom ma ko jox dinaa ko utiliser pour jàmmarloo ak ñoom loolu mooy élégance républicaine en fait en réalité mais tu peux pas na nga toog Chine fële utiliser sa secrétaire général de la présidence mu jël benn communiqué wax na le président a mis fon a mis fin fonction au président nangam nangam affaire yooyu ils n'ont pas respecté les Sénégalais maintenant décret de dissolution bi nga xam ne moom moo tas assemblée bi ce même décret moom moo ne la boo tasee assemblée bi da ngay organiser élection entre soixante jours francs et quatre vingt dix jours francs moi j'ai pas compris pourquoi le président a pris même l' intervalle de soixante jours parce que soixante jours mooy deux mois lu tax jëlul quatre vingt dix jours tout à l'heure mi ngi koy wax li sax ma ne le président arrêté le train mooy euh, dafa am une loi boo xamante ni moom moo ne l'ouverture de la session unique de l' assemblée nationale ordinaire c' est au plus tard le 15 octobre de l' année en on organise les élections au mois de novembre il faut faire très attention président bi date yëpp fi mu ne raté na ko amatul le président n'est pas en conformité avec la loi alors que daf moom en tant que njiitu réew mi moom dafa war a respecter lu ñu wax loi assemblée dafa am loi constitution parce que soo seetloo député yi suñu leen suñu suñu nekkee député ba pare kayit gi ñuy jël président bi moom mooy jël kayit pour wane ne député yi dañ leen woo pour ñu installer tel jour loolu constitution la constitution moom moo ne ko aussi que assemblée bi su ubbee le 15 octobre au plus tard le 15 octobre lu muy tekki mooy assemblée mënul ubbi le 16 mënul ubbi le 17 mënul ubbi le 18 li mën a ubbi mooy entre le premier et le 14. donc ngay organiser ay élections au 17 novembre donc raté nga d' abord benn date ñaareel ba c' la première fois dans l'histoire du pays ñu dem ci ay dëkk boo xamante ni amul lu ñuy wax débat d' orientation budgétaire li ma lay wax lii aussi loi moo ko wax. Mm-hmm. loi bi moo ne débat d' orientation budgétaire assemblée nationale dafa war am avant le 30 juin. parce que 30 juin la assemblée di tëj 15 octobre lay ubbi di di tëj la au plus tard le juin dafa war a am lu ñuy wax débat d'orientation budgétaire mooy ministre des finances ñëw ci biir pencum ndaw réew mi député yi mën a wax seen i soxla ak seen bëgg-bëgg parce que débat d'orientation budgétaire bi c'est comme dans les et les conseils départementaux mairie bi balaa muy dem ñi koy voter budget bi di ko nangu préfet bi wala sous préfet di ko nangu il faut mu def débat d'orientation budgétaire pour que ñu mun ko nangul loolu te débat d'orientation budgétaire soo ko defee ci mairie yi ak conseil départementaux yi yoon def na la boo ko jébbalee l'autorité administrative que ce soit le préfet ou le sous préfet il a une intervalle de 30 jours soit mu approuver pour mu kii wala nangu nga mën a jàll ci leneen léegi Sénégal mooy dëkk boo xam ne amul débat d'orientation budgétaire Sénégal mooy dëkk boo xamante ni amul loi de finances rectificative de l'année en cours parce que loi de finances rectificative mooy permettre moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye su tasoon au conseil mu nasaxal aussi conseil économique social environnemental alal ji nga xamante ni réew mi moo ko voté woon pour ñaari institution yooyu moo koy permettre mu jël alal ji encore mun ko dugal feneen mais tey institution yi nga xam ne tey def na ci blocage seen fonds yi mënu koo laal parce que il faut mu am une loi boo xam ne mooy réorienter pour pour pour def benn te loolu mooy Sénégal amul tey loi de finance boobu noonu Sénégal mooy dëkk boo xamante ni boo xoolee ba xool encore aussi une fois de plus mooy dëkk boo xam ne on risque de faire la la gouvernance par ordonnance te gouvernance par ordonnance soo jëlee article 68 de la constitution et article 86 de la constitution moom moo ne président bi soo demee ba amoo budget mun nga reconduire budget bi nga amoon bi passé mais pour nga reconduire budget boobu noonu pour mën ko doxal da wax da war a am lu ñuy wax une loi d'habilitation loi d'habilitation assemblée nationale moo koy voté pour nga mën a am pour nga mën a nekk en conformité avec la loi nga mën a di gouverner donc tey jàppal ne dëkk bi tey ñoom dinañ ko yor ci yorin boo xam ne duñ ko teg benn ci yoon ñu amul fenn fu ñuy sukkandiku tey pour diriger dëkk bi parce que li nga xam ne moom moo am fondement juridique bi ñoom nanuñ ko respecté donc ci a comprendre nan moo xam parce que yow budget wala tey kër gi ngay liggéeyee am na yenn yoo xam ne tey soo ko bëggoon dépassé kër gi dalay tegal ay normes yoo xam ne la ah may mun a yaa ngi bëgg a dépassé suñu ligne budgétaire wala lii ak lii su demee dina am incidence budgétaire ci ñun donc encore une fois de plus je le dis et je le répète ils sont de violer la loi au su euh, au vu de te gars kenn waxu si dara parce que tey ñoom mënuñu yor dëkk bi yaakaar na Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne ab moomeel la wala ñu nekk ci dëkk boo xam ne président dafa nekk di satisfaire xoolal tey président li mu def pour la première fois dans l'histoire du pays nga gis président boo xam ne def parjure parjure mooy lan mhm. nga joxe sa kaddu mu leer na ne yow li nga li sa kaddu gi nga joxe nekk loo xam ne honoré nga ko le président a écrit au président de l'Assemblée nationale en disant le 13 le 12 mu jël décret ba dissoudre assemblée nationale kon moom kaddu njiitu réew mi tey lan lay jëlee ci réew mi donc je pense que encore une fois de plus sénégalais yi dañoo war a yeewu xam ne ñi nga xam ne ñoo fi nekk yor ay responsabilité wala di politique ëpp ñu ëpp ñu kenn xam-xam gënuñu kenn xam xam xam réew mi dafa jekk ñu am ay responsabilité parce que responsabilité du du du maanaam li ñu lay fay du oto bi ñu lay jox du essence bi ñu lay jox mais yàlla moo lu moo lu tànn ci askan bi nga bokk nga nekk koo xam ne mbir mi dafa war a doon sacerdoce dafa war a doon yan bu rëy pour yow mais warul nekk loo xam ne non sukaay la pour sa askan wala nangam donc encore une fois de plus ce gouvernement là la loi du pays et il va continuer à